te ma ne journaliste yi euh, maa ngi koy wax keroog dem naa ci benn plateau boo xam ne presque comprendre ñu woon fi ma doon waxee waaw mu indi polémique bu rëy ñu merki mm-hmm. ma ne leen man gis nga maison de presse pour man c'est une chose am na danse am na xaw ma lan des fois sax am na yeneen activité ki n'ont rien à voir avec la communication mm-hmm. loolu yëpp kooku dafa business la de milliers de personnes qui y travaillent c'est excellent ci Sénégal mais information dañ ko bañ bind ko ci constitution bi mm-hmm. journaliste moomu ko waaw parce que bu fekkee ne da ko moom rek ngeen denc ko seen kër dootul amati njëriñ mm-hmm. Mm-hmm. voilà kon ñun dañu soxla information bu wér te wóor ah, du noonu nga koy waxee bu wér te wóor waaw <laughs> kon boobu euh, boobu information buñ ko bëggee am euh, yéen tam foog ngeen jug tuuti nag xeexal seen bopp nag mm-hmm. li tax ngeen jug parce que man mënuma comprendre koo xam ne euh, dafa yore journal ak yooyu ñuy taxaw naan ko parce que yore woo benn carte yow dootoo journaliste te dégguma coow lu rëy daf may jaaxal daal. dama ne mhm. kon kuréel bi ñu créé tey moo ëpp moo ëpp gëdd pour nekk journaliste ki jàng ak vingt ans trente ans d' expérience. loolu mooy lan. Mhm. man je peux comprendre que bu ñu nee euh, bii événement ku amul carte doo fi dugg. je peux comprendre. Mhm. wante quand à li nga xam ne sa jàng moo la ko may. te coow jibul. ma ne kon Sénégal xanaa ñi ngi nelaw ba léegi. voilà tamit. Euh, li daloon yenn yenn pays européens yi moo dal Sénégal c'est-à-dire léegi euh, maison de presse yi euh, c'est par des hommes d'affaires qui mmh. plus souvent boole ci hommes d'affaires politiques mmh. voilà donc yéen ñi nekk ci biir euh, da ngeen war a xeex pour préserver l'information parce que gis naa par exemple euh, Europe bi ma nekkoon bi Lagardère nekkee di jënd yu bari euh, bi le monde euh, dem bay du dugg ci seen loxo mais société des journalistes ñoom dañu taxaw jël pour centage ci action yi mhm. euh, revendiquer seen seen ligne éditoriale revendiquer seen indépendance taxaw sax ba bi président de la république naan leen voilà yéen sama rayonnement ci biir àddina bi da ngeen ci war a liggéey ñu ne ko nekkuñu fi pour loolu mhm. nekkuñu fi pour loolu ñun dañ fi nekk pour joxe information bind tribune ba mu leer nañ nanguwaat seen bopp euh, parce que tamit li li li am ba am mooy journalisme tey jii ni mu demee Sénégal dañu dem ba man li ma gis mooy euh, journalistes yu bari dañu nangu euh, dog li li leen di teg te du yoon mhm. dañuy auto maanaam auto autocensure booy seetlu bu baax eh, tribune yu bari waxtaan yu bari da ngay gis ne que ah waa su ma ko waxee ndax lii su ma ko waxee ndax lii def ci bari léegi nga gis benn frilosité maanaam benn espèce u ragal pour def sa liggéey donc euh, ma gis ne tamit euh, ba ku ba ñu jàppee euh, bon mën naa wax seen tur Pape Ndiaye ak Coromaxu mhm. Mandela vraiment jàppale bi timide na man dem naa ci yëf bi jàppale bi kii parce que ak cinquante mille média ci dëkk bi bu ñu la invité sax da ngay xool sa calendrier tellement de y en a beaucoup mais ah keroog vraiment jàppale bi woyof na te loolu man man koy man rafetlu ma ko. Hmm. donc euh, li ngeen seen seen seen matière première ak seen seen gëdd ci ci société bi defe naa ne euh, boole na ci li ñu wàcce ci li ñu tasat ak ak ak ni ñu ko defee ci ci opposition bi donc euh, am na combat boo leen war a mëne pour moomaat seen bopp ah parce que pouvoir bu am importance la. ci ci pour ci démocratie wax nañ ko hmm. sànq. voilà donc daal. Euh, yow pour yow. ah oui pour man les journalistes euh, ont capitulé dans la globalité. d'accord ci kuréel bi daal dañu dañu nangu bu baax parce que bu ñu toogee ba nga xam ne euh, li xew Sénégal da dem ci ay France 24 CNN di ko gis parce que nee nañ fii ku ko fi wone tu subversif. Hmm. loolu journalistes yi nangu ko man je dis que y quelque chose qui va Hmm. loolu c'est pas normal il y a beaucoup de de lutte yoo xam ne war nañ ko mën a mëne. mais oui buñ ko defoon léegi léegi rek affaire yi soxla. mais bien sûr parce que yéen boo leen waxatul du lu ndaw. du lu ndaw. Hmm, parce que je me rappelle je pense que c'est le mois dernier bi waa Guinée di def une journée sans presse. waaw dafa dox tout le monde la a parlé. te gis nga li mu andi mooy euh, nit ñi dañuy détourner ci réseau sociaux yi. te loolu ñëpp gis nañ intox yi mooy li ci nekk ah, information yi wu kenn du ko vérifier kenn xamul fan la jógee mhm. ak ak yu ak ak vraiment là là ça va plus quoi. non ça va pas du tout